voilà tey li ñu bëgg waxtaanee suka mhm. daañu ñëw ci euh, dëkk bi léegi fa ko maam bàyyi woon démb ak barki démb daa mel dafaa jóge mhm. beneen bi mooy it fu ci nekk suñu njiit dem nañ ci réew mi ak biti réew wax ni kat Sénégal réewum démocratie la mhm. ak ci yu bëree bëri démocratie bi nag dafa am lu bëree bëree bëri loo xam ne bu ñu xoolee ci ay jàngat moo koy dindi dinañ ñëw incha allah ci Papa mi nga xam ne fii la ne ci kër gi te dañ koo téye lañ ko téye donte ni nee nañu ay wax la yu mu wax yu mu euh, xaw a ñàkkee teggin magistrat bu Sénégal ak it sosal leen loolu dinañ ci ñëw mm-hmm. gannaaw baat gis nañ fa ay journalistes yoo xam ne nee nañu dañoo euh, màndi ba ni xuy mbëkk ay mbëkk mm-hmm. euh, def ko ñaar yoon ñu delloo leen li nga xam ni mooy seen permis est-ce que ñu ni amul deux fois deux mesures dinañ ci ñëw Bougane Gueye Dany mi nga xam ne itamit ca wet ga gis nañ ko posé question ñu daal di koy eh, jël teg ko garde à vue moom Bougane Gueye Dany mu ñëw daal di eh, confirmer ay milliards yu sakkan lool yu ñu dugal ci biir Sénégal te ba léegi nee na dara eh, daal di ci sotteegul ñu njëkkee ko nag ak conseil des ministres bi nga xam ne président Sall def na ko Bambey mm-hmm. bi mu ko defee dafa mer mer na gouvernement bi yépp nag lu tax mooy dafa gis ni dafa wàññi woon ceeb ak diw ak lépp mu mel ni daal président Macky Sall xaw ma njabootam ko déglul mm-hmm. xaw ma ndax commerçant yi ñoo ko déglul mais daal mer na trop ba wax ni daal njëg yi mu wàññil woon daar daar daar daar daar na ci ñi nga xam ne mooy ay ministre am jóg ngir ñu wàññi ko léegi na ñu bari di poser question ba ci Baye Assane daan ne est-ce que jotul kon président bàyyi wàññi ndax lépp lu mu laal tey bu ni woon ndox mii nañ ko wàññi bu subaa weer wi di ñëw ndox mi yokk bu ni woon courant bi nañ ko wàññi weer ba ca topp da gis courant bi day yokk léegi ñu bëgg a laaj nag lu xew boobu président waa réewam déggaluñ ko wala ay ministre am déggaluñ ko wala commerçant yi déggaluñ ko. sooy bu euh, d'une part waa réew mi déggaluñ ko je pèse bien mais moo tere laa toog di wax en plus tamit commerçant bi dem jënd bagage xamoo lu mu jëndee tey nga wane ko tey kur kookur da nga koy da ngay wàññil baam bi mhm. pour mu ñëw jënd est ce bi moom grossiste bi ba mu koy jaay en wàññiloon na ko loolu aussi tamit dañ ko war a régler ah, wàññi daa war a am ay normes a am ay normes ba pare parce que yow mënoo génne benn décret rek ne article nangam génn na mhm. tey boutique bu nekk kilo ceeb ñu ngi koy jaay cinq cent mhm. nga bëgg koo wàññiloo kut kut da nga koy lor tamit ñun ñun ñi nga xamante ñooy clients yi ñun ñuy jënd buñ ñu wàññilee tamit bañ bañ signé lool nañ wax ak tamit grossiste yi mhm. parce que man bi wàññi bi commencé door dugg naa sama boutique mu yokk meewu góral yaa muy jar 500 mhm. kilo suukar mu ne 650 suukar 600 la doon jar léegi moom mu yokk 650 ba mu toogoon ba tey jugu fa dooloo ko 600 mhm. mais xam nga dama ne ko damay kon kooku am na ci lu mu teg waaw dama ne ko damay woo. maanaam a vert boo ci wootee sax du am. mu ne ma wooteel samay reçu mi ngi nii samay facture mi ngi nii nangam laa jëndee ba may jënd saako suukar lii lañ ma ko jaay kenn wàññi lu ma kon du ma wàññi état lu muy wàññilu naka na ñëw yéen mu jaay leen mu xool ñu lu ñuy daj ah, parce que ñun comme ñoom nag wàññiluñ leen fa ñuy jëndee honnêtement ñoom amuñ droit wàññi ci sama xalaat bu gàtt quoi mais bu fekkee ne ñoom grossiste bi lañ leen doon jëndee bu ñuy jëndee saako ceeb vingt et un mhm. ñu wàññi leen defal leen vingt laa laa laa bu ñu jaayee quatre cent cinquante ou cinq cent dañoo war a woote numéro vert wala ñu woo ñeneen contrôle économique ñu ñëw jàpp leen mhm. mentionné leen ñu leen mais loolu mënoo ko def fenn parce que ñoom la ñuy jëndee ba tey ñeneen ci loolu lañ toog di ko jëndee yaa ngi jooy boutique yi mais location yi pare ñu nekk ci kër yi da ngay wax yow yow yow mi nga xamante ne locataire nga da ngay wax propriétaire kër gi ne ko wàññil parce que état moo ne nañu wàññi mm-hmm. mu ne fuñ ko teg nga bëgg a indi njuuj njaay xam nga borom kër gi lu mu lay wax damay réflexionné génn te da ngay génn par force mu joxaat ko keneen nga génn mu jox ko keneen ki nga xam ne li nga doon bañ moom nangu na ko mm-hmm. loolu la ñuy bañ loolu la ñuy wax ngay bañ tuur ndox après ay ngalaw di la rey du genre dañ koy teggi na nekk mm. donc wàññi bi dara wàññeeku fi tey la waalo gën a waa aay tey la gën a métti son yi bu indi bi fépp lay suusee lool laal mu metti man dama dama tiit dama ne man wàññi bi ci ban partie lañ ko wàññi wala wàññi bi dafa am bii bukki bi njuur bi sàmba peut-être mu am ci benn ruq comme dëkk bi moom lépp lobi la mhm. am na yeneen ruq yoo xam ne amaana boo demee di nga ci am bon prix bi nga bëgg mais à l'heure actuelle boo dee yoroon sa micro trottoir mhm. bi yëpp soo génnee dara wàññeekoo réew mi dara doxut réew mi feebar na réew mi taab na réew mi girib na ñun dañoo jommi <laughs> jërëjëf réew mi tàbb na waaye békki am na fi am naa jëmbal maam ñoom dinañ génnewaat békki ma jigéen euh, léegi nag li jaaxal Sénégal yëpp mooy maanaam suivi daal moo mënta am ci suñu dogali euh, état yi lépp lu ñu wax rajo yi daañu ko ngañ-ngañee def ay édition spéciale ah ay débat spécial nangam spécial bu ñu paree deux mois après dara du ca du ca sotti loo jàpp ni looloo tax. <laughs> waaw suñu bu suivi kay am na si yenn yenn yenn yenn mbir yi nga xamante ni ñoom bëgg nañ. ñi mu dénk sax laay wax. Mhm. mu dox. Mhm. parce que soo nekkee président xam nga ñun Thiès lañ dëkk. am na ay travaux exemple rek laa lay jox am na ay travaux yoo xamante ne nii dafa nekkoon. comme mhm. par exemple boo wàccee péage bi. am na benn tali bu ñu doon defar bu bu jëm si côté stade bi noonu. tali bi kenn xamul woon. ban at lañ ko commencé. Mhm. mu ñu dem ba si digg bi ñu arrêté liggéey yi foofu yëpp dafa xonkoon parce que tali bu xam tali boo koy defar lu njëkk li ah. voilà mhm. boo fa rombee say oto yàqook yooyu noonu mais keroog bi président bi di def euh, tournée bi. Mhm. Thiès dañoo gaawoon taf taf. ah oui wallaay lanzim ñu defar ko ba ma fa jaaraatee sama frère bi moo may wax ne ma xoolal lii amaana bu fi président bi rombul woon tey. du du liggéey bi du gaaw a pare comme ni ñu ko gaawantuloo defar ko pour wan ko ne ko tout va kon mm. donc moom bu fekkee ne dafay wax ne daf leen mere te yenn mbir yi su bëggee mu suñu bëggee taf taf mu gaaw ñu mm-hmm. gaawal ko xam nga ni loolu son yi bu mooy mm-hmm. que ni dafay wax ne pour pour pour genre xaw ma daf koy wax pour sénégalais yi delloo si waat seen mm-hmm. xel wala daal mais li jara def tali c'est bien baax na pour nit ci mën a jàll mais dund bu cher gi nekk si dëkk bi nga ne yow tey wàññi nga boo wàññee ne borom boutique yi nañu wàññ mhm. jaaroo ci consommateur bi wala peut-être ci port bu muy génnee fañ koy jëli jee yooyu yëpp bu amul procédure bu war borom boutique bi mën na lànk ne moom tamit mënumaa jëndee lii juróom mhm. ngeen bëgg xëy tey ma jaayee ko ñaar dërëm kon loolu mhm. partement pertement lay doon donc il faut que ñoom tamit ñu xoolaat bu boo baax a baax seen doxalin parce que mënuloo ne tey tali bii dangaa bëgg mu pare tey dund gi cher gi soo nee dama koy wàññi numéro vert yooyu ngay wax pour nga woote ci rek jot ci rek problème la ah ama loolu aussi boo nee yow boo boo gisee loo xam ne jaaduwul wooteel boole fi nga woote ba sonn mu sonn sonn sonn dans le vide ngay woo kan ngay kan kan fan ngay plaider woo li li la li la nakkari kon donc daal man daal vraiment mbiru président Sall moom ah nañ xaarandi rek comme que jeexal na ba noppi peut-être mm. keneen kuy ñëw dina dina jéem a xool sooy bu bul ma dugal s'il vous laaj la wala. laaj la wala li nga def ni ab question la wala. question la dafa war a arrêté mandat bi bu jeexee. Ah, keneen ñëw da ngay laaj ndax daa war a wàcc wala da ngay. question non dama ne man laajuma de. dama ne li Sénégalais yi wax. sooy bu s'il vous plaît. sooy bu Sénégalais yi ah, wax mooy. que ni troisième mandat fii dañ ko fii tere. kon donc bu jeexalee bu am solo laay jàllale. xam nga dafa laaj waaw eh, man na defoo de ma yaa xam mbay de buñ la ko defee. jërëjëf sukaa kon su ma déggee ma jigéen dafa mel ni kon état bi fii ak mi ngi toog bureau di xaatim te du wàcc sur le terrain. daf mel ni mu dara kon du sotti. wallaay daf mel ni kon bu fekkoon day jéem a wër boutique yi di def na Omar ibn Abdoul Aziz daan def. Mhm. di xool réew mi ni muy doxee. Mhm. su ko président Sall doon def kon def naa yéen ñi dina am suivi. Euh, son yi bu ma déggee maa jigéen li mu wax. Hmm. Euh, euh, Sall ngaari ñu ngi koy nax. Mhm. waxuñu ko dëgg. ñu ngi koy nax ñu ngi koy nax bu baax. da laaj wala. déedéet ñu ngi koy nax loolu moom maa ko wax. waxuñu ko dëgg. ñu nekk di ko entouré entourage am. waxuñu ko dëgg. lii moom man maa ko wax. Ah. maa koy assumer. li ne ci terrain bi daal waxuñu ko. waxuñu ko dëgg sérieusement. mais dama dégg ñu ni président moo gën a informé wu ci. déedéet yow tamit nag kon Abdou Diouf dinañ ko Abdou Diouf kon dina dina wàcc ba pare ne xamuñu woon ni meew day jaay juróomi dërëm. Hmm. c'est grave. c'est grave waaw. Hmm. nit ñi du euh, tey sa tey bu ma doon ànd ak yow euh, ma ma ma di la gëmal ni la lii baax na baax na baax na. Hmm. da gëm ni baax na te fekk baaxul. boo neree boo waree ñëw fenn ma ni xaar la ñu defar fii ba mu baax balaa balaa bu di ñëw boo ñëwee boo gisee loolu day baax kon da naan lii baax na fekk dara baaxul ci. fekk dara baaxul ñu ngi koy nax waxuñu ko dëgg. Mm. bu dee yokk bi tamit moom fekkee moom moo waxoon. Mm. bu fekkee population bi ak nit ñi ba xam ay ministre am koo yeb ba li amul kon ay ministre am dañ koo yeb ndax waxuñu ko dëgg. Mm-hmm. te nit ñaa ngi parce que moom nee na woon moom dañu wàññi. waaw nit ñaa ngi souffrir ba léegi tey la gën a yokk. Euh, nit ñaa na joxe nopp bu baax bi. Mm. nit ñaa ngi souffrir de déedéet na jo na ko joxe mange wallaay maa ko wax du lay na joxe nopp bu baax bi ndax nit ku ne da koy wax dëgg tey boo bëggee nit ki da nga koy wax dëgg mhm. na joxe na joxe nopp bu baax bi ñu di ko wax li lii ne lii yëpp ne am na loo xam ne nekkul mhm. am na loo xam ne yu bari ñu ngi ñu ngi koy sëlëm di ci kaw nii mhm. xoolu la ci biir nax nañ ko ci li nga ci taw bi ci euh, bi taw bi amee nax nañ ko déedéet bi pont bi bi pont bi amee bi bi pont Patte d'Oie bi tojee nax dañ ko ndax foofu dañ ko rembale rek bàyyi noonu mu dem yoonam balaa avant moo ñëw ñu defaraat ñu ngi koy nax ñu joxe xool bu baax mi ngi noonu mhm. pour dëggal loolu mhm. euh, nawet bi lañ gisoon benn télé ba après la pluie c'est le bon temps mère te dara amu ci yàlla weer leen ca taw ba ca topp ñu inondé ba seen oto yi ñu koy nax muy RTS RTS ni ko daal bu tawee ba pare Dakar moom c'est le beau temps mhm, fekk amul alaaji loo jàpp ni moo tax président Sall ak njabootam déggaluñ ko wala waa réew mi ak commerçant yi déggaluñ ko waaw man de li ma yaakaar hmm. euh, dama seetlu ni hmm. euh, wàññi lu sérieux la comme yokkit ni mu sérieux hmm. parce que lépp loo ciy def rek euh, muy jëm ci nit ñi maanaam paramètres yëpp yi nga xamante ne bi mooy tax mu war a mën a ne doo ci négliger lenn waaw ah. parce que mbir mi dafa dépare ci kiy indi jox commerçant yi kii grossiste yi jóge ci grossiste yi dem ci ñi nga xam ni ñooy détaillants yi jóge ci détaillants yi moom ñëw ci ñun ñi nga xam ne ñooy dem ci bitig yi di jënd. Mhm. maanaam mu nekk benn procédure boo xamante ni euh, boo koy wàññi mënoo ko wàññee fii bàyyi fii wàññee mhm. fii bàyyi fii. c'est que il faut que waxtaanam ñu xool lu ca ne. parce que ci biir wàññi bi état dafa am lu mu war a nangoo perte. Mhm. ki nga xam ni mooy indi am lu mu nangoo bàyyi grossesse bi am lu mu nangoo bàyyi kii it am lu mu nangoo ba mbir mi mën a yemb ci li nga xam ni mooy mbir mi man dama gis ni wàññi yu bari. Mm. dama jàpp ni ñoom liñ ci soxla ci communication. mooy waa turu wàññi naa. Oh. turu wàññi naa nag ak lay am ca terrain ba day nekk loo xam ni. ba bëccëg la maanaam li ngay dégg tey ñu wax la ko. boo demee doo gis ni loolu mooy am ci boutique bi. li nga xamante ni moom lañ leex ci location. boo demee doo gis ni loolooy am ca kër ya. parce que lépp lu ñu fi teg rek gars yi dinañ ko contourner defee neneen tey jii mënuma nangu ñu ne ñi ngi wàññi. tey jii détaillant bi ne la man li may jëndee mënuma koo jaayee man parce que bu ma demee jëndi ñëw mënumaa maa détaillé ma bàyyi ko. dootuma ko jënd parce ci loi defe naa. dañuy tere sax jaay di perte. parce que nit ki warta jaay di perte comprendre donc parce que tey jii jaay di perte lu tax ñu koy loolu mooy lan xam nga ñuy tere jaay di perte hmm. tey jii jaay di perte boo koy def léegi tey ñu ne la yow mii da ngaa dugg ci ay blanchissement d'argent am na leneen loo dugg looyu xamante ni pour setal hmm. alal ji nga xamante ni bii moom nga yor nga hmm. parce que il faut alal ji nga jaarale ko ci yenn circuit yoo xamante ne bi mooy mën a tax alal jooju ko maanaam da ngay mbubboo njaay mi mhm. mais du njaay mi moo la yor am na leneen loo xamante ni bi moom nga ci euh, jublu mhm. donc loolu mooy li nga xamante ni moo tax ñu ne dañuy tere loolu léegi nag wàññi yi nga xam ne moom la président def ndax mhm. yooyu yëpp jaar na ci moom lan la bàyyi comme ay taxes bu fekkee daf ne wàññi naa ceeb bi. Hmm. wàññi naa suukar si ndax ba léegi taxes yi daf ko dindi wala ilaa taxes yooyu ba léegi ña fa bu fekkee ne moom la mu doon am. ci hmm. commerçant bi indi batoom. Hmm. indi ko. la mu doon am teggilu ko dërëm ba noppi bëgg a. Ah, wàññi mbir mi wàññi. munul ne. parce que kële bu ñëwee du nangu loolu. tamit kooku tamit bu jaayee grossiste bi loolu mooy nekk ni wax ci daf dañ koy wax rek tey jii mi ngi taxaw di wax ne. mer na ci. Mhm. mais mer day ànd ak jëf. da nga war a teg ay mbir yoo xam ne te tamit dafa war a am ay sanction parce que bi ñu ko joxee am na nu ñu ko dénk. Mhm. am na ñu ñu dénkoon mbir mi. waaw ñii ñu dénkoon mbir mi tey ji bu dee président moom mer na te mer googu ci moom mu nekk loo xam ne lu wér la waru ñoo yam rek ci mer na mais ay sanction dafa war a am diw mi ñu joxoon lii doxalu ko parce que bi ñu waxee dañ ne day am comité de suivi. ana ñooñu tey. Mhm. nga xamante ni ñoom ñoo waroon a suivre mbir mi kenn déggu leen ci leen. kon donc. mer naa rek taxut nit ñi ne mer nga mhm. parce que ñëw wax fëgg dënn maanaam euh, ñu ne naqari na ko mhm. te gisuñu ci terrain bi luy wane ni yow naqari nga ko wa ilaa ñi nga xam ne ñoom nga faroon ñoom ñëpp ñu ngi toog di yaataa yumbe kon mbir mi naqaru la maanaam dafa mel ni sénégalais yi la ñuy tuur lëndëm mhm. loolu mooy li nga xamante ni moom laa ci gis parce que nag wax dëgg fa yàlla réew mi nit ñi sonn nañ ñi ngi jëm ci weeru koor nit ñaa ngi naan suukar amul tey jii wax nga ma ne ma suukar am na dañ koo denc. dañ koo denc mais lu tax ñu denc ko. c' est hmm. que am na ñoo xam ne jënd nañ ko ba noppi mais buñ ko jaayee dañuy perte. waaw parce que am na koo xam yow mën jaay ma suukar duñ la jaay ma ñëw ne jaay ma ñu jaay ma. Hmm. nga lu tax c' parce que yow wóolu wuñ ndax mën nga leen a yoole. wa ilaa mën nga donc ñenn ñi lu ñuy jaay dañ koy jox koo xam ni wóolu nañ ko. Hmm. jàpp nañ ni kii kat buñ ko jaaree euh, coow di jib. ñu moom mu nangoo jëndee na nga xam ne noonu la ñuy jaayee. alaaji bi ñu fi wax waal wàllu ceeb bi fii nii ci benn boutique Assane xam na bi may wax bi ñu demee di jënd ceeb. waaw waa ji bi ñuy jaay saako bi ca biir kër ga lañ ko génne. waaw hmm? pour dëggal li muy wax mën naa am keneen ñëwoon na ñu ko jeexal mais ñun bi ñu ñëwee. waa ji pourtant nee na am na waaw ñu ne ko am na waaw saako duggi jógewul ci biir boutique bi ca biti biir la jóge. da koo dencoon. Ah, da koy denc. ca biir la jógee. ay ca mi ngi noonu kon daal président Sall bàyyi ci xel jàppal ni daal lépp loo loo wax ni na wàññi rek wàññiwul ko yokk na non oh. non du wàññiwul sax day yokk après. Ah, <laughs> waaw day yokk mi ngi noonu jërëjëf ñu dem uh, ci uh, Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp uh, ginnaaw bi agi bu waxee ay wax ñu woo ko di ko laaj gannaaw boobu fekk na Bougane yooxoon bu yàgg 98 milliards ñu ne cel na kenn faalewu ko waaye keroog bi nga xam ni woo nañ agi bu rek Bougane ci boppam démb def na ab conférence de presse ñu dem dellu si waat Sénégal le comptable assignataire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 mais après soo demee gëstu milliard lan la man ñu ni ni détourné lu toll ci 98 da ngay jaaxle léegi li jaaxal ñëpp nag mooy Hadjibou Soumaré dafa posé question mooy li man tooñee ma jigéen naan ko ah, da ngay laaj léegi réew mi dafa mel laaj fi wóorutul xam nga gis nañ ku xëy posté ay reetaan ñu denc gis xëy kuy def live ñu denc la kaso bi léegi dem nañ ba léegi kon réew mi sax ci laaj ay question léegi li jaaxal ñëpp nag mooy kii dafa laaj ñu ne ko kaay bugaan di yuuxu 98 yoo xam ne joxe na numéro compte bu mu ni xaalisu senegal la bu ñu dugal ci compte ci turu Sénégal détourné ko dugal ko fenn tëbale kenn woowu ko lii nag moo jaaxal ñëpp lu xew. moo ma jaaxalaale man ñu sooy lu ñuy xaar pour oo ko. Mm. xam nga réew bi li ma lay wax chaque jour rek la répétition est pédagogique dëkk bi dafa am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. ah am na ndey. Euh, bugaan am na ndey bugaan bugaan amul ci réew mi ah, ngi tëj ay comptam di. oui ma xam nga tëj comptam. Mm. terror mi ngi sant yàlla. mi ngi fay ay ay employé am non. waaw. mi ngi lekk mi ngi naan waaye ñu ngi koy xeex ay kërëm koy xeex xam nga ñu ngi koy xeex dafa dafa am ko ma mos di waxtaanal mu ne ma mm. Bougane day liggéeyal Macky Sall ah déedéet am ku ma wax loolu man ne ko désolé parce que bu doon liggéey Macky Sall du ko dénoncé. te lii Abibou Abibou Soumaré wax Bougane wax na ko keneen ku dul Abibou Soumaré wax na ko te juste une question. waaw waaw damay laaj ndax réew bi dañ fi tere laaj. sooy bu sama xam bi ñaata la jar dañ koy tere. am na noo koy laajee ma yóbbu la ci yoon. réew mi nag amatul kon nag. sama xale bi dafa rafet ñaat lay jar ñu yóbbu la ci yoon waa na kon nag mooy réew mi nag ku ma am ndey la ak nit wax na fi lu ne weng. Mm. lu ne weng laa la wax te laajtew dafa wax affirmer confirmation yu leer te fanaanu fa da wax kañ dañuy naan réew mi opposition bu fi nekk looy wax na nga ko xam looy laaj na nga ko xam mais dama ne la boo nekkee parti au pouvoir waxal li la saf waxal njaay njaay njaay rëkkal junj ya jël wax jala saf jaay ko ma jooju mu foree ko tamaam xale yi baara may ko dara du xew coondu tëgg waal di wéy yàlla yàlla yërëm coon sekk mm. nañu arrêté son yi bu mm. bu ñu naxante dëkk bi li fi nekk nii du yoon du dëgg du yoon parce que ki ñu jël tey di ko yóbbu foofu di ko def ay garde à pour ñu koy garde à ah, moom déjà tey rek maa ngi koy dégluwaat ci revue de presse avant may yegsi hmm. lan la wax moom dane damaa laajte waaw dane dane je m'adresse au président de la république yow tey ma ne la son yi dama lay laaj jesner mètre ñaata lay jar hmm. doomu wax mètre douze mille onze mille su ma la waxee jees sooy bu sa trois quarts bi ñaata nga fay amoo droit wax ma yow laa laaj yaa may tontu sukaambaay solul jees neer solul abosul so du ma tontu. léegi man su ma la gisoon nga génn bureau saa. waaw léegi ma bàyyi ba nga ñibbi. ma daal di néew daal di taxaw ca penc ma fu la ci mbedd daanu ko saa dama lay laaj ndax bi kii génnee sa bureau da nga koo jox juróomi junni. waaw loolu tuuma la wala laaj la du tuuma laaj la question la saa njóogu bu ko neexee mu suturaal ma ne joxuma dara bu ko neexee mu ne waa jox naa ndax hmm. réew moomu lañ hmm. wax laa gën yomb kaay ma te ñu ci bëri lañ lay wax dara du ci dëgg. Mhm. sooy bu dama ne juge yeeg magistrat yeeg président laajte ma la je pèse bien mes mots. da ngay laaj télé laa wax dama ne. fii lu fi waay di def ak loo fi wax di nga laxasoo sa ndeyjoor bi alaa kulli aali yal na yéex nañu rafetal toogaay yi suñu ruq mën a kan xam ne gis nga àddina bii hmm. day jeex son bu sax poos du fees rek nga yor say milliards di rita dugg say ay kilim def say yëf say doom nekk à l'extérieur di jàng xale yi nekk fi di torox daara yaa ngi nii mbënn maa ngi ñëwati koor gaa ngi nii di ñëw nit ñaa ngi jooy di xalaat lii xew allahu axlan yàlla moo xam lan lañ war a dundee lan lañ war a terale suñu waajur yi lan lañ war a ñagee suñu bopp parce que fi ne ni nga tëdd rek yeewu yàlla la mais yow yow ñun ñi nekk ci média ñëpp da ngay tëdd sax di tiit wala nga def émission tiit wala ngay tiit boo nekkee ci dëgg di wax dëgg jarul tiit jarul rag man day Senghor ragaluma tiituma damay dama ne hmm. président Macky Sall xoolaatal sa njaboot gii hmm. toogal ak ñoom wax leen dëgg li ma la waxoon keroog la répétition et pédagogique yaay père de la nation gis nga réew mi boo bëggee mu am jàmm apaisé ñëpp di doxi seen soxla di ko wax barke alxuraanul karim mun na comme yow lii nga bëgg am njaay indi jóob bi hmm. ah waa neex na neex na neex kay laaj damay damay confirmer na neex gi ay laaj na neex sàll ngaar lam tool dama dama neex gi dama ne laaj ay la wala da ma ne ndax na neex gi ndax laaj la wala da dëggal sa bopp damay dëggal na neex mm, mm. giita ngaas nga ñu woo na neex ah. waaw na neex ñu rëkk ñu rëkk ko jërëjëf ma jigéen euh, macha allah ab euh, laaj la bu ñu lay jox boo xam ni euh, kii defa dafa manaan maanaam bul tiit ay wax wax la rek yow jóob nga sant bul tiit waaw ba pare itamit lii may laaj ni dafa am solo dafay wan suñu yaay ak suñu maam yi ni ndeke réew ma président Sall la yoroon keroog gis naa benn vidéo boo xam ne incha altine dinaa ko indi ci télé bi mhm. dafa wër dem Touba dem Ndiassane Niassène fu nekk di wax ni mhm. lii ma bëgg a indi bu ngeen gisee ma indi ko damaa bëgg a delloowaat Sénégal àqam yi ñu ko xañoon ak démocratie ci réew mi mhm, léegi démocratie googu nag lañ commencé ñàkk ba nit bu posé question léegi mën nañ koo téye ab garde à vue comme niñ téye ki nga il faut pas me distraire. incha allah d' accord d' accord allez-y mhm. bul ma wax ndax damay laaj ou pas. mais damay laaj. parce que man mais damay laaj. waaw mënuma concevoir. <laughs> ñoom tey bu ñu leen bu ñu leen laajee lan moo tax ngeen arrêté kii parce que lan ab opposant la bu toog fee. Mhm. Euh, euh, arrêté nañ ko ndax dafa taxaw bind lettre di demander ay questions yoo xamante ne nii mooy euh, mooy suñu président de la république. loolu la wax ni moom lañ ko jàppee. te dégg naa sax Sadio Gueye suba mi ngi koy wax solo son avocat ba léegi nii xamuñu. lan lañ ko téewee ñoom ñoom avocat yi sagam ñoom avocat yi ñoom ñoo dem ba xamuñu lan lañ jàppee nit. te euh, Bougane yaa ngi koy wax ay révélation la def. Mhm. jël euh, voilà voilà def bu mu defee ay révélation joxoñ Mansour Faye kii ay question la laaj. révélation ak ay question c'est pas pareil. xam nga duñu benn. Mhm. peut-être ñoom mënoon nañu woo Bougane. Mhm. mais man damaa ne euh, may laaj encore. yow waa may laaj. soit Bougane li mu wax peut-être nekk na dëgg. Mhm. te ñoom nanguwuñu ci sori. parce que dëgg la <laughs> damay laaj vraiment damay laaj beneen bi mooy peut-être aji bu sumaaree si suba maa ngi la koy wax à rajo ma ne la kel lenn moo mën a am mhm. soit dafa nekk dëgg mhm. ñu bëgg ko woo bëgg ko noppiloo mhm. wala soit li mu wax li Bougane wax moom moo dul dëgg kee man daal comprendre ma mais daal sooy bu affaire bi doy na waar te c'est bu ñu toogee nag ay Ousmane Sonko di wax ay quatre-vingt-quatorze milliards ay Bougane Gueye Dany jóge fële wax non seulement avant quatre vingt milliards yi waxoon nañ ci problème mu euh, euh, le Dantec ba ñu mujj annulé jaay ba jaay ba bu ngeen fàttalikoo c'est vrai loolu amoon na fi mm-hmm. tey kii ñëw laaj poser ay question ci koo xamante ni nii dafa jógee bitim réew te Sénégal son yi bu bokk na ci pays yi nga xamante ni nii ñoo fi ëppi bor mm-hmm. yow yaa ngi am ay bor yu milliards mm-hmm. keneen jógee fële ña lay jox ak ñii ñëw di di tibb si suñu xaalis di jël suñu pétrole di jël suñu gaz di jël suñu lépp di ko yóbbu ci seen dëkk yow nga yëkkati set milliards di leen ko jox moom mu taxaw di poser question nga woo ko tëj ko ah ci kilifa boo xamante ne nii peut-être même bu dul dara sax amoon am na lu mu fi jotot def ci réew mi nekkoon na fi premier ministre nga woo ko tëj ko ndax lan parce que daf laa poser ay question li nga wax rek mooy dëgg ndool ah. nii comme que dafa nekk di di lii ah. na neex na neex voilà Diop ah. yaa na neex baax na mhm. baax na na neex kay mi ngi noonu suka euh, yow da ngay laaj <laughs> Boubacar Samba ngi lay seetaan da ngay laaj mhm. voilà mi ngi noonu kon ci ajumay tey jii. Ah, hmm? ma lay laaj. waaw laaj ma moo laaj li buggaan wax. Hmm? noo ko gisee ak li aju bi wax ñu téye ko te ba loolu buggaan wax kenn téyewu. buggaan est-ce que bëggul ko ko tëj. buggaan waaw kuy la tëj suka ah, ah buggaan rek. bëgg ku la tëj buggaan fu ne lay dugg buggaan ne lay wax buggaan ne lay lijjanti te kenn laalu ko ba tey. waaw moom kenn du ko woo. moom kenn du ko woo mais bu xëyee suba daal di. te lu ne lay wax de te lu ne lay wax te bu waxee kenn du ko faale. te day indi preuve li lii ak lii kenn du ko faale. Euh, waaw day moom day wax rek. day wax rek day wax rek danaan lii ak lii ak lii lii gis naa ko lii ak lii président Macky Sall mais kenn du ko wax dara woo leen ma kenn du ko woo. waaw yéeme na de. gis nga kenn du ko woo dañ koy jël teg ko ne. non kon nag moog Sonko nag wax di yàlla war nañ leen xoolal. non non non di kan. moog Sonko kenn du leen woo. Euh, Sonko moom dafa nekk ci yoonam nan ko bàyyi rek moom mu def. lu mu bëgg a def waaw bugaan kay comme kenn du ko woo. parce que est amal na. njëriñ président de la ah, république. Ah, non non non non du tout par rapport Bougane. non bu waaw da ko waaw Bougane ak kii Bougane ak Sonko c'est diamétralement opposé. kii dafa am mbooloo dafa am ñu mu àndal. Mm. kii kan moo ànd ak moom dafa dafa am loo non damay laaj. <laughs> <laughs> moo fi ne damay laaj voilà damay laaj rek ba tey teer leelu kan moo ànd ak moom. waaw kan moo kii mbooloo la àndal. te mbooloo boo xam ne boo bu buñ ko woowee tey léegi mbooloo mu fëkk ñëw ànd ak moom kenn du ko woo léegi lii ku ma am ndey la ku am amul ndey la ku ma amul ndey la moom nee na moom day laaj rek hmm. kon dañ koy laaj moom président li ko ajibu laaj wax na la ko leeral rek hmm. ah, loolu la question réponse rek ba xam kii Marine Le Pen jox ko cinq milliards jox sept milliards joxuma ko dara kay loolu neex na hmm. waaye nga di ko woo ni ko lii wag lii wag lii ba jël ko ne te kilifa la président dañ lay laaj rek tamit lu mu def ba nga téye ko ah, loolu ngay laaj lu mu def. waaw du ma ko wax na neex nag moom. ni may ah, jël bul wax na neex. alaaji <laughs> euh, jàngat boo def ci ñaari mbir yi xewandoo kii 98 milliards la tudd yoo xam ne moom joxe na ay numéro compte kii nag 7 mili 7 milliards la wax yoo xam ne dafay laaj ñu téye kii bàyyi kii muy doxi lu xew. waaw est-ce que kii doxi tëjuñu ko. tëjuñu ko. bugaar est-ce que nekkul ni ci li nekk nii moom prison la. voilà leeralal affaire yi nag. Ah, peut-être boo ko tëjoon mu wàccoog salaire yi dootut fay salaire dootu def dara day wax de kii léegi peut-être boo ko tijjee nii gars yi daan ko ñëwal géew weer wi dee na comptable yeeg yooyu muy lijjanti est du loolu booy kaso bi fi toll di ci bugaat. <laughs> parce que pareen saa yi am na ñoo xam ne boo leen tëjee kaso da nga leen tijji maa ngi la doon nettali ne la waa ji nga xam ne ramas da koo jàpp police bi xool ko ne ko eh, ci bi ci bi ci acca yow demal foo fanaan ngay wër <laughs> dugg ci kaso bi mooy gën ci moom nekk ci biti. waaw mais léegi révélation bi yow yaa ngi ci biti. révélation bi dafa rëy waaw mais révélation bi léegi nag bu noo seqaloon loolu pour humour quoi. xam nga c'est pour humour que ni bon par exemple yu mel noonu est-ce que du nekk kii quoi mais nag. li mu wane. lenn loo xamante ni bi def na ci point de presse. aussi tamit leera wane ni alal la joo xam ni dafa dañ ko leb bitim réew. alal ji waroon a dem ci jibay Sénégal ñu gis ko ci compte privé mu nekk loo xamante ni bi joxe na ay numéro compte ak yooyu jàpp naa ni li mu def révélation la boo xamante ni bi tey euh, bu doon ci réew mu normal dëggantaan lañ nekk scandale bu mag a mag la mm-hmm. parce que lii doon nañ ko lijjanti ci nu mu gën a gaawee le fait nag ñu soofantal ko moo lay wan ne la dama naan bon ñi nga xam ne ñoo yore jibay réew mi ak réew mi ni muy doxee est-ce que réew mi kon yitteel na leen mm. parce que le ñu bañ koo xoromal parce que loolu lu ñu war a wax la lu ñu war a lijjanti la comme ni ñu fexe woon quatre-vingt-quatorze milliards yi ñu waroon lijjanti ak xaalisu Covid bi nga xam ne dañ ko war a mhm. lijjanti te lijjanti wuñ ko problème yu bari Sénégal yoo xamante ne dañ ko war a lijjanti te wuñ ko loolu leer na la kan moo koy hmm? ah, lijjanti ñi nga président moom lañu ñu fal ah, mais alaaji yow amul woon sept milliards yu Taïwan yi yu Idrissa Seck ji ñëw ne xam nga loolu moom loolu mën nañu wax ne ana ba léegi xam nga loolu mën nañu wax ne yoolu loolu ci jamonoy Ablaye Wade ah, waaw mais ba léegi ci boobu Sénégal la tege de Ablaye ñëw na weddi dina moom nee na musta maye euh, alal waaw yaa ngi dégg donc loolu lu ñu war a di lijjanti mais en tout cas daal problème boobu nekk na loo xamante ni kii léegi nag Hadjibou Soumaré mi laaj ñu woo ko denc ko hmm. waaw xam nga par exemple nga posé question boo xamante ni bii mën nañ laa téye en attendant balaa ngay génn leneen di wut réponse peut-être dafa amut tontu laaj yee amut tontu hmm. saf gi laaj yi saf peut-être moo tax ñu ne ko kaay yow léegi nag euh, man li ci doy waar mooy Abdou mbay mi ma dégg mu ne Hadjibou Soumaré mhm. euh, ni mu waxee xaw ma mi ngi mel ni kuy jubbanti Hadjibou naan na jégguloog na def léeg na def laa mhm. yooyu nga xamante ni moo wax Abdou mbay moom lu mu xam ci mbir mi ba naan jéggul bay expliquer ah, comprendre am na loo xamante ni dafa tooñ président bi waaw yi mu wax noonu waaw parce que yow bu fekkente ni nit ki dafa poser ay questions mhm. parce que man jàpp naa ni Euh, ajibu def na ko ci façon bi mu gën a responsable maanaam peut-être mën na am mu yëg dara mhm. li mu yëg bugg koo wax directement léegi ginnaaw bugg koo wax directement accuser président mhm. mu def ko si form laaj si mhm. forme question la ko def léegi nag jàpp naa ne bu fekkente bi ay tontu yu leer a ngi fi soxlawut ñu koy téye dañ koy tontu rek mu daal dee jeex mais la fet que tontu wuñu ko ba noppi daal di koy woo teeku garab yi aji bu nag kilifa la. d'accord parce que tamit bon pareen saay àddina bul di toroxal ay kilifa. te aji bu kilifa la. sunu borom def na ko ko. que ni mm-hmm. nit ki mu neex ko ak mu naqari ko. sunu borom jiite na fi jëwriñ yi pendant des années. Mm-hmm. donc loolu nag du lu ndaw. comprendre nga kilifa la donc kilifa yi sunuy kilifa yi il faut que ñu di leen sagal. parce que sagal googu dafa am solo mhm. parce que bu ñu demee ba ba fuyee yenn yi mhm. euh, mbir la yoo xamante ni bi mbir yi doy waar lay nañuy sagal kilifa yi daal jaajëf jërëjëf Alaaji Sanjogu Mbeng kon ñu mujjee ko rek ak euh, dafa mel des na nga ma wax de ah. voilà kon ñu mujjee ko ak point bi nga xam ni Papa Ndiaye nekk euh, fii ci kër gi ñu koy ñaanal mu delluwaat ci njaboot ak jàmm incha allah léegi dañ koy lëkkale nag ak loo xam ni keroog bi ngay jël point yi bi ñu koy bind nee naa ki ma doon waxal bëgguma sax tudd baatu baat ñu koy wooyee fii ci Sénégal parce que Sénégal foo toog di wax ci télé rek ka ngay waxal amaana doomam jarbaatam mbokkam mën naa nekk sab soppi di la seetaan moo tax ma ñu utiliser ci baatul rek ñàkk sago gi nga xam ne wax nañu dañuy ji dafa jël lu koy tàqaleeg sagoom journal yi ñoo ko bind gannaaw bu ñu def na ko ñaari yoon bàyyi nañ ko nag mu ñibbi donte ni nee nañ def na ay catastrophe maanaam am na ñu mu mbëkk moom Papis Diaw léegi am ñu lëkkale ko ak jàpp Pam Ndiaye ñu ne dafa am lu mu wax ñu teg ci ndoddam six points yoo xam ne nañu da koo wax te du dëgg ñu téye ko loolu donte ni moom dem nañ ba ci biir ñun itam bu demee ba nga xam ne peut-être ay source am euh, na euh, nga gisee loolu ak permis à point yi nga xam ne état bu Sénégal dañu woon da koy indi ci wàllu permis tey nit mën a def jéyey deux fois mënoon a rey ay nit mm-hmm. tey jii ñu bàyyi ko mu dem permis à point sooy bañ ko fii doo ko wax laa ne lii du dem intoxication la rek du lu ñuy Mm-hmm. parce que bu ñu ko validé dafa def link moo yàq réew mi son bu link link mooy balaa droit tey son bu temps yee passé amul benn ministre benn avocat bu jaar ci euh, war a respecté feu rouge respecté wul feu bi mu burne dem jaar sens interdit mm-hmm. et pourtant biñ ko arrêté lan la wax magistrat laa man la diw dañ ko bàyyi mu dem non mm-hmm. xale yi taxaw bi policier bi di wax ak waaj ñoo ko filmé mu ngi ci réseaux sociaux mujjul fenn yow mi boo ko defoon tey jii amaana doo yegg dinañ la bindal la ngay dem fay douze mille wala nga fay six mille wala du genre ñu koy loola wax la wala nga samp pour mën a dem dañ mm-hmm. waxante dëgg dëkk bi du mus baax mm-hmm. parce que link ak lobby moo fi nekk moo koy doxal mm-hmm. tànk ki fi nekk wàccu loolu jeex maa ko wax link ak lobby sooy bu da ngay tooñ yow da ngay tooñ dem ka nga tooñ war laa yóbbu ci yoon yow nga dem yow man ma des fa man te man maa la tooñ looloo fi nekk da ngay tooñ wax li la saf nga génn dem añ ba suur reer ba suuf dem mbeeraay def li la saf ki deful dara waxul dara ñu ne ko kaay xanaa kooku amul ndey wala amul baay wala amul ay mbokk on est dans quel pays mhm. man réew mi man bi ñu nekk ni actuellement dama xaw ban Sénégal añ nekk mhm. man est-ce que nekkuma Guinée je ne sais xaw ma fa laa nekk mhm. damay toog ba yàgg ma yéemu ci addina li ñu def da dëgg du yoon te pourtant kooku ñu wax ne dafa dafa mandi lañ wax pour mu clair pour ñi seetaan xam dañ ne dafa mandi TFM mm-hmm. la nekk mm-hmm. def nañ ko ci journal yi kanamam teg nañ ko nëbbuñ ko bu doon lu ñu suturaal nit la mënoon nañoo nëbb kanamam no mais ñoom ñoo ko exposé kenn nëbbu ko mm-hmm. ba pare wax ko te ne bii mooy deuxième fois mu di ko def ba mu màndee dafa mbëkk benn oto bu gaar gaare taxaw ci parking circulation Kër Massar mu ne ko rajo dugg te dara fekk ko ca léegi pour lan loolu moom moom mooy kan moom fu mu toj moom nu mu sant moom mooy kan Pape Ndiaye mi jàpp ko dem suñu 8 mars baa nga ni sax xam nga ne neexul sabaru musique ngir dund kooku mu métti nit ñi nañu arrêté son yi bu léegi moom moo gën Pam Ndiaye Pam Ndiaye Pam Ndiaye li mu wax moom tamit li Abib Soumaré wax la wax rek question bi daf ne am na yenn magistrat yi nga xam ne li ñu attee euh, Ousmane Sonko fay ñu ko yóbbu mhm. am na ñu ci d'accord mhm. mais mën na nekk policiers yi am na ñu nekk Macky Sall am na ñu nekk Sonko am na ñu nekk Malick Gakou am na ñu nekk Khalifa am na ñu nekk keneen. ñëpp libre ngeen ngi nekk lan moo tax vote militaire di nekk privé. ñoom bu ñuy voté ñun bu ñu voté duñ ko xam duñ ko yëg. parce que ñu yor seen tenue ñun ñu nekk ay citoyen ñun sénégalais ñooy génn voté nga jaay ñàkk kersa pour bëgg ñaari junne ñu la jox devant la porte wala junne nga dem jël yeneen. këyiti jàmbur def ko ci sa biir wala sa jiin génn dem ut bëgg lu neex leader bi ne ko voté lu ma diw mbalit yaa ngi nii nañu arrêté civilisation amul ci réew mi yar amul ci réew mi parce que ñàkk kersa gi moo fi nekk ku ñàkk éducation de base nag da ngay sa lépp dañu defaraat toogaay te yemale doomu aadama yi nga xam yàlla yemale na ñëpp ñoom tam nañ jéem a yemale réew mi merci beaucoup Bambi euh, ma jigéen deux fois deux def mel la ñu gis kon ci réew mi bu ñu seetloo donte ne ñu bàyyi ko mu dem te suba mën na laa rombaat ak otoom nii def deuxième bu saf sàpp Pape Ndiaye yàlla na ko yàlla génne ci xat-xat yi moom tamit nee nañu diffamation la def ba tax na téye nañu. waaw deux poids deux mesures son yi bu wax dëgg yàlla de man de bu ma xoolee mbir mi. Hmm. boo dee seet li waajee def sax moo gën a garaaw téeméeri junni yoon. parce hmm. que même même même occidentaux yi sax parfois da ngay gis ñoom ñu pointé si tali bi guddi gi. Hmm. bu ñu gisee kuy dawal màndi. dañ ji ju nekk mën na mën mën na ko nekk tey jii nii ñu ngi wax ne oto boobu noonu moom mbëkk mënoon na nekk nit xam nga su nekkoon nit su ko su fekkoon dee na maara day taal yi dañ koy tëj ci kaso bi donc da ngay jël loolu nga jël place oto bi rek nga teg fa nit njaay kon nga xam ni kooku def na erreur mm-hmm. nañu bàyyi bu nit defee dara rek nga ne nit kii kat peut am na nu mu mel ñoom ñaan ñoo yem parce que ñoom ñaan ñëpp ay journaliste lañ certes Pam Ndiaye ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm gaaw génn ak jàmm ak salaam ay ay kii la lu yu mu teg rek même buñ ko woowoon sax buñ ko dégloo waroon nañ koo mën a bàyyi mu delluwaat këram kee li mu def moo gën a garaaw téeméeri junni yoon parce que bakkanu doomu aadama mënoon na cee di dawal di di di di di di fekk yaa ngi màndi loolu code de la route baaxul parce que lu nekk mën na mën na si am son Assane nee na hmm. loolu bu amee maanaam liy yoon dañ laa war a jël wéer la fenn ba nga dellu si waat <laughs> ba nga xibiliku ñu joxaat la sa permis nga dem. Ah, en tout cas euh, euh, tubaab yi noonu ñoom moom noonu la ñuy def bu ñu la gisee mandi nga dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay kii léegi léegi léegi. mais vidéo buy circulé ci YouTube bi. waa malien benn paa malien moo mandi ci yoon bi. policiers yi arrêté ko xam ne mi ngi xeeñ sàngara booy dañ ko téye yar làppali ko sotti ko ndox nangu permis bi téye oto ba bët set ñu doon ko waroon sanctionné même su fekkee ne dañ koy bàyyi mu ñibbi am na yenn yoo xamante ne ni jaaduwul parce que ko bàyyee ni mu ñibbi parce que ku xas ba màndi yow nekk àndatoog sa sago bu ëllëgee mën na koo defaat te bu boobaa bu ci rayee nit ñaanuñu ko yàlla bu boobaa lan la ñuy wax pourtant jàppoon nañ ko fi dañ koo bàyyi woon mu ñibbi si këram te tey def na jéyee ji nii am na yoo xamante ne mieux vaut prévenir que macha allah kon daal sukkaa kon maanaam wóoratul léegi ci réew mi kon ndeke nit mën laa romb ni xuy di dawal xuyu waaw maanaam kon ku la romb rek maanaam léegi daal bu ñaawal jot ku la romb ci tali bi Mhm. moytul xam ne mën na ni xuy di dawal euh, bu ñu sukkandikoo ci ndax ndeke du crime de xuy di dawal ah crime la nag moom ah boo se mais crime la boo seetaanee boo sax boo sa seetaanee télé même ci film yi boo nekkee en temps d'ivresse hmm. dañ lay jàpp dañ lay jàpp c'est diamétralement mais defe naa defe naa moom defe naa deux jours defe naa moom fanaan na fa deux jours sax. mais Pape Ndiaye kañ la nekkoon ci. waaw euh, bu ko noo koy waxee. kumba am ndey kumba ah, amul ndey. non man ma problème mu bàyyi mais problème joxaat ko permis bi. permis bi parce que est-ce que tàmmul ko def ni koy bàyyi chaque jour bu ko defee bu. bu ñu ko rek balaa loola. est par rapport ak Pape Ndiaye. Mhm. Pape Ndiaye li mu wax parce que euh, danoo ciblé fi nga xam ne rek moom moo di Walfadjri mhm. day nit koo xam ne mi ngi Walfadjri di am yu muy wax teg ko ci yoon di ci wax parce que xam na ko parce que ngi ci li nga xam ne rek moom moo di milieu bi. Mhm. am na loo xam nit du def yenn yi. d'accord am na lu bari loo xam ne da koy jomm. Mhm. Euh, son yi bu. d'accord nit bu ñu leen boo jàppandoo. kii dañ ko jàppee ci lii kii nu jàppee ko ci lii nga bàyyi ko ci lii jàpp kii am na loo xam ne nag doy na waar. d'accord nit ñi nag gën a war a xam xool dañoo war a xool. nii noonu. Mhm. jërëjëf euh, Souka Alaaji noo jàngatee mbiru euh, papis mi euh, ak Pam Ndiaye moom itam yàlla na ko yàlla génne ci xat-xat yi papis i tamit li ñu koy waxal ni yëpp bu dee dëgg laa nattu la rek yàlla na ko yàlla génne ci nattu yi noo jàngatee ñaari mbiri Pam Ndiaye ji nga koy ñaanal fa mu nekk mu jóge fa ci jàmm dellusiwaat ci liggéeyam euh, parce que nit ku ne ci li ngay liggéey li ngay joxe nit ñi ay xibaar loolu boo ca même bu fekkonte ne danga caa juumit ci sa liggéey nga ne bokkut ak kële nga xam ni ca leneen la ne maanaam kii ci li mu ne même bu fekkante ne bi euh, dañu wax ne mu ñu ne la dangaa juum te jàpp ma ni peut-être que ni te am na ci parce que ba léegi bi ngi nit ñaa ngi véhiculer yeneen kii mais waxut loolu nga xam ni moom lañ ko wax mm-hmm. que ni il paraît que waxut benn yoon weddiwut ay waa propos waa dëggal na li mu doon na li nga xam ni moom la waxoon. Mm-hmm. kon donc loolu mooy wane ni kon li mu doon wax wér na ko tey fi mu ko jëlee eh, doy na ko du dëgg donc kooku mënaguñoo mënu maa jàpp ni man fi mu toll nii ba nëga ni ñi am njuumte dafa am ci mbiram. Mm-hmm. waaw kon fi mu toll nii nañu xool ndax yëf yi eh, jaay doole rek buñ koy jaay doole wala wala lan. mooy li nga xamante ni bi moo ci nekk may daal moom ci liggéeyam la ne fan yi ñu génn nag boo seetee réew mi dafa nekk ci ay coow yoo xam ni ba nga xamante ni bi defe naa ni premier ministre ak ministre transport ñëpp daje nañ wax ci accident yi mm-hmm. mu nekk wax joo xam ni euh, jàpp naa ni wax ju leen yitteel la ginnaaw bi ay nit ñàkkee seen bakkan ba ñu jëloon luy toll ak vingt et un defe naa daal di koy ne bëcc ci taabal ji ci jamono jooju ñu découvrir chauffeur bu màndi boo xam ne jàpp nañ ko mu mbëkk kooku mbir yi warta li seddee nii parce que tey imaginer tey mu nekkoon benn chauffeuru euh, moo xam transport bu ne woon dafa màndi mbëkkoon dara ñu jàpp ko est-ce que nii la ñuy traité mbir mi ah. foofu ngay yóbbu mbir mi dégg tey jii da ngay jël waa ji nga teg ko ci palaasu tey tegoon ko benn sëfoor rek boo xamante ni bi da doon dawal màndi ñu jàpp ko yëg ni dafa màndi mm-hmm. te mu nekk loo xam ni ci surtout ci période bi nga xamante ni bii dañoo jëloon fii ay points yoo xam ni tegoon nañ ko wax ni accident yi nii ak naa ñu gis ni moom kuy màndi moom di dawal moom wóor waaw dëgg mën naa def lu ne. mën ngaa rey sa bopp mën ngaa rey. mën ngaa rey sa bopp mën ngaa rey ay nit. lu ne mën nga ko def parce que tàqalikoo nga ak sa sago te oto boroom sagoo ko war a yor. Mhm. ku am sago licite waaye ku licidut warta dawal oto ñaareel bi ñu ne. defoon na ko beneen yoon. mu ne lu jiitu lii loolu amoon na. si waaw kooku nag. ay xanaa kañ bu njëkk bi sax bu ñu nee jéggal nañ ko benn yoon parce que peut-être dañ naan mi ngi koy soo a def. Mm-hmm. mais mu tollantiwaat ko. Mm-hmm. mooy wane ni kon kii kat. nga ñam. Mm-hmm. te fi mu toll nii libéré nañ ko bàyyiwaat nañ ko dana dawalaat. waaw te fekk génnut ci mbir yooyu. mën naa defaat lu ni mel. Ah, mën na laa rombaat ak deuxième. waaw bu ëllëgee nag bu ko defaatee keneen. maar de taali yàlla bu mu am waaye leneen am ca. Hmm. léegi ñan ñoo indi problème bi ñu koy bàyyi est-ce que ñoom ànd nañoo ak seen sago. waaw ah, mais loolu est-ce que branlon la war a la war a yi nga dégg xaw ma branlon la xaw ma lu mu waaye daal dama ne. Hmm. kuy tàggalikook sagom daal ñu ne ku àndut ak moo ko dugaloon fële def na ko defaat ko ndax ñu koy bàyyi ñoom ñi ngeeg seen sago hmm. il faut que ñoom it ñu jéem a xalaat ne kii kat même buñ koy bàyyi mu ñibbiwaat këram nañ na ko dootoo dawal. Mm. nañ téye permis bi. d'accord interdit ko ko. léegi man foofu problème bi mu am mooy. waaw yamba defe naa euh, dañ koy aaye ci réew mi. yamba waaw. yamba day tàqale nit ak sago. yamba nga daan defe li ma xam. léegi question la foofu damay laaj. comme dañuy laaj dañuy damay laaj. léegi sàngara itam day tàqale nit ak sagoom. waaw léegi sama problème bi mooy lu tax bii dagan ci réew mi bii xaraam ci réew. non yamba. ñaare ba baax. non non non non non non ki li mu wax mooy. sàngara ah, dañ ko autorisé. waaw dañoo autorisé bii xam nga xam nga sàngara. sàngara sàngara loolu yëpp mbiru tubaab yi la rek gis nga yamba. Mm. moo gën sàngara. lan yamba parce que yamba. yàmbaa day faj sax am na yu am na muy faj donte nag ëppal lépp loo gis non sooy bu ma wax la leen sooy bu am na ñoo xam ne tey jii tubaab yi euh, tubaab yi da ngay dem docteur bindal la am na dëkk yu ñu ko autorisé yoo xamante ne bi day am pharmacie yi jaay yoo xam da ngay dem jënd c'est parce que da nga ko soxla mhm. ah yaa ngi dégg ëppal giñ ci ëppal ëppal gi ci ñenn ñi ëppal mooy moom mooy moom mooy ma ni sàngara ak yàmba ñoo bokk lu ñuy def léegi lu tax ñu autorisé bii mais c'est que bii xam nga tey jii loolu pour nga xamoon ko hmm. gis nga tey boo invité woon yenn genre rastamaan yi ñu toog am na rastamaan yoo xamante ne bi yor nañ ci philosophie yu extraordinaire yoo xamante ne bi chaque onze mai boo leen déglu dañ lay expliquer gànjaa gi fi mu jógee et cetera comprendre ak li nga xamante ni bii moom la mën a def ba ci am na ay feebar yoo xamante ni bii. Eh, yàmbaa ji da ci da cay baax. Ah, ba ci ay asma am na kii yoo xamante ni bii. Eh, am na nuñ koy kii. a benn joint wala. comprendre nga xam nga tey jii garab yi. xam nga wax la leen garab yi di faj boo ci ëppalee mu yóbbu la feneen. mu mu loolu waaye kon léegi lan moo tax ñu aaye ko. waaw yàmbaa li tax ñu aaye ko dégg nga a wax lan la am na dëkk yoo xam ne aaye woon nañ ko mais léegi ñu ngi koy autorisé. Mhm. ñi nga xamante ni bii da ngeen di wut ay place yoo xam ne bëgguñ tux sa yàmba fa ngay dem tux calmement. am na dëkk boo eh. paree daal dee dem. mais pas mais dañ lay jaay loo xamante tux mu yam di nga mën a économiser kii yor sa carte boo ñëwee jënd. Eh, defar say joint nice na ah parce que foo fekk tukkat yamba lay la plupart du ñu am problème dañuy toog xoolal laxas ko nii orné comprendre nga taal après léppay fine quoi ñoom eh, dañuy yi nice ba pare dégg mais nag li ci bon mooy. Mm. dañ ci abusé. Mm-hmm. di ko def ba mujj gi vraiment boo yu bari yi nga gis fii ñu ñu ñu dof fi. toof mm. ay yàmbaal ak affaire yooyu quoi. mais sàngara day dof baaxut. pour nit ñi mais sangara day def loolu sangara da koy def mais bon yàmbaa da ci gën a. sangara gën a yées sooy bu. waaw moo gën a yées sangara moo nekk lu nga xamante ne nii xabaayis kay bu ñu nee bokk sangara gën a yées mooy ndey ñaawteef yi. sangara euh, sangara mooy ndey ñaawteef sangara moo nekk li nga xamante ne loo ci def boo ko bu la waxee yàpp yeneen sangara yoo xam ne bii sangara sangara néew di doole yi dafa gën a tee bon sangara néew waaw dafa am sangara yoo xam ne ñoo gën a tee garaaw mooy mooy salañ salañ yeeg yooyu mooy sa ay sun ay kii sangara baadoo la quoi dafa am yoo xam ne yu am na ci dëkk yoo xam ne sax laj koloñ bi la ñuy naan ah xam nga ne laj koloñ nga jël ko ne xaar nga jël ko sol ki nga jël sa ñaari bitéelu laj koloñ lu ko tuy mm-hmm. to xoolee nee naan ba pare lancé waale un am na beneen sàngara bu mel ni big bu xew tamit loolu tam war nañ ci wax billaahi war nañ ci wax comme big la mel comme big écriture la mel dinaa la am benn euh, lien bu ma la envoyé loolu dina war a ñëw ci noo ko dundee bi d'accord incha allah